d'accord euh, Alaaji Rafet euh, nu ñëw si sa relation ak ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko gis nañu saa su ne da ngay génn. Mhm. boo génn def ay live da ngay wax ci moom. Mhm. ban relation ngeen am yéen ñaar. waaw non Sonko mhm. day nit ku baax rek. Euh, nit koo xam ni tamit képp ku bëgg Sénégal bëgg Sénégal avancement Sénégal. da bëgg usman Sonko gis tamit àddina jug rek ñii di saaga ñii di. wax loo xam ni ku ko dégg nit cam mm. te liñ koy wax lépp nekkul ci moom xëy na ñoom intérêt wala dara nañ ci jublu mm. pour yaakaar ko feneen pour ñu jox leen ko pour ñu yàq deru Ousmane Sonko mm. ma xam ni ma xool ko seet ko xam ni kii nit ku baax la te képp ku ko jàppale tamit sa bopp ngay jàppale parce que Ousmane Sonko ñun ñu koy jàppale suñu bopp ñu jàppale xëy na tamit li ñu koy waxee rek euh, même buñ ci dundul ñun suñuy sët dund ci mhm. waaw looloo tax ma jóg ngir jàppale Ousmane Sonko xam ni nitu yàlla la nit ku sell la nit ku baax la nit ku mhm. bëri yërmande mhm. looloo tax rek ma sawar mës toog yéen ñaar hmm? waaw Ousmane Sonko toog nañu def nañu vidéo maag moom sax toog nañu def nañu vidéo ni mu mel noonu la mel dafa nekk nit koo xam nit ko oyof la ba bañ na ko ba xeebul kenn Euh, ñi muy àndal sax muy gardien yaa xam lu mu doon buy añ day bokk yow añ boo mm-hmm. dali kii tey boo demee këram daaraa nga fa ay doomam di jàng muy mm-hmm. nekk nit ku baax mm-hmm. te ku gis sëñ euh, Moustapha euh, Cheikh bu sëñ saaliwu kooku dafa dëddu àddina kooku lépp luy àddina rek doxati na ko ba mu waaw sëñ bee bëggal boppam waaw te ñooñu dañuy gis baatin waaw xëy na nag ñàkkul baatin bu gis ci moom moo tax mu bëgg ko ak sellam mm. waaw kooku nag mooy Ousmane Sonko. Mm. gis nga que jamono yi génn na def benn point de presse ba daal di def déclaration ni moom euh, candidat la ci élection yi nga xamante ni moom la ñu jëm waaye sénégalais yu bare di ko xalaatal ni est-ce que dinañu invalider dinañu valider candidature am euh, ci élection yi nga xamante ni moom la ñu dëlmal loolu ban jàngat nga ciy def. bu ko. génnul sa déclaré ñun suñu bopp mhm. ñoo ko ciy poussé mhm. parce que moomatul boppam mhm. te réew mi kenn moomu ko kenn moomu kenn mënu koo tere moom mu nekk euh, président wala mu déposé candidat parce que du du réew mi bàyyi kenn moomu ko waaw Sénégal ñoo ko bokk waaw ñun ñooy seet ki ñu doy ñu fal ko mu nekk président waaw teq-teq bu ñu mën a def nag gàllankoor bu ñu mën a def ñoo xam lu ñu mën a def. Mhm. dañuy solo seen bopp rek. dañuy solo seen bopp. Mhm. parce que duñu yàlla duñu yonent bi. Mhm. ba naan kii diw mooy bokk diw du bokk. parce que ñoom teguñu fi seen bopp askan bi moo leen fi teg. waaw yàlla nag moo yor doole. waaw yàlla doole ji moom suñu borom toog nga ko yor. waaw ku yaakaar nag am nga doole. ba lu la neex nga ne danga koy def. ndax nga sa bopp. ndax yow yaa ngi xalaat ni bis dina ñëw nu daal di ko convoqué daal di sulliwaat yëf yi ngir empêcher ko mu bokk ci. yëf yi <laughs> non yëf yëf. <laughs> mooy euh, procès bi mu war a dem ak. Adji ci ah, wàllu xam nga xam nga euh, contrôle judiciaire bi nga xamante ni ci la nekk. gars yi mën nañ ko woo bu ko càmbaraat. ah bu ñu ko woowee tamit te ñu jaar euh, mu jaar fi mu war a jaar. Mm-hmm. Ousmane Sonko mooy am dëgg rek. Mm-hmm. mooy am dëgg la ndax euh, piège bu nekk mëne nañu ko barki démb gis nga koo xam dañu ko armée mu mm-hmm. nekk Maroc mm-hmm. génn mm-hmm. muuru wax ci Ousmane Sonko moo ma def lii moo ma def laa gis nga suñu borom seetaanu ko te gis nga suñu borom bu sampee mbër bu yeboo nga ànd ak moom bien waaw boo àndul ak moom da ngay sa bopp rek parce que nit ki ak pexe ma yàlla ak dogalam te suñu borom moom si boppam gis nañ ko si yonent yi gis ko ci na ak Moussa rek doy na kii ba ñu waxee kii liir gis nga ni mu demee dem ba mu feeñ këram. Mhm. ba mu yaral ko boppam. kon nag dañu bu ñu bëggee noppalu ko daal bëgg jàmm. Euh, Sénégal nañu noppalu ko ci Ousmane Sonko. Mhm. waaw moo si am solo daal parce que mhm. ñuy def yëpp dañuy solo seen bopp. waaw te senegal ñun jàmm nañu bëgg. ndax biñ leen koy jox dañ leen koy jox ci jàmm. kon nag li may ñaan rek ñoom ñu doxal ko ci jàmm. waa xam ne yàlla mooy fal nguur. mooy far buur. waaw loolu daal laa amoon lu may wax. d' accord ji rafet yàlla mooy far nguur mooy far buur euh, foofu la ñuy jógee daal di ñëw ci sa diggante ak relation bi nga xamante ne am nga ko. ak waa dina ma neex. Mhm. ndax falan la xamee sénégalais yëpp falan la xamee fa nga njëkk a génn su ma juumul. Mhm. def lu jëm ci wàllu théâtre. Mhm. Euh, sa relation ndax am nga relation boo xamante ni ba léegi yéen a ngi nekk benn yow ak Daaro ak may euh, Maymuna ak Adja Fall mooy artistes yi nga xamante ni nekk nañu ci dina ma neex ban relation nga am ak ñoom. non ba léegi jàmm nag Daaro sa woo na ma keroog pour ngénteem bi. samedi passé ah dama koo fàtte. waaw toog ba six heures ba Daaro da ngénteem xool dégluwaat audio bi muy le 27 boobu looloo tax sa teewuma ci waaye moom te muy nit ku baax. may mun a tamit waxoon na ko Adja Fall moom sama nit la moom mm-hmm, mm-hmm. Adja Fall moom seet si naa ko fee ba Jurbel maag sama frère bi Manel wax dëgg mm-hmm. yàlla muy nit ku baax nit ku dëggu nag man loolu moo ma neex ci moom dafa dëggu daal lépp lu mu la bëgg a wax dala koy wax moom tamit maa ngi koy ñaanal jàmm di ñaanal waa dina ma neex yëpp jàmm ak Aline Mbaye waa moom tamit nit ku ñàkk ki ñoom fan la ñu toll ba léegi dafa mel na amul seen saison yi jeex na waaw waaw jeex na wala ah non gëwuma ko nag. Mm. parce que man moom wax dëgg yàlla gëj naa joué. Mm. affaire gën naa man daal li may gën a yëngu actuellement ci affaire Ousmane Sonko. mooy politique. waaw fi mu toll nii yàlla daal dañ ko mën nañu wax alaaji rafet bàyyi na lu jëm ci wàllu théâtre waaw waaw mi ngi yoon boo xamante ni politique la. waaw waaw waaw loolu la daal. Mm. Ousmane Sonko daal comme que yàlla dañ koo dénk. moom nañ nekk ci ginnaawam rek. jàppale ko problème yi xaw a déga dégagé quoi. Mm. jërëjëf nu li ñuy mujjale mooy ci ki nga xamante ni moom la ñuy woowee liwaali xaw ma liwaali. Mm. nee nañu euh, waa booy waali yi dañu ko jàpp ñoom Amar xam nga daal di ko dóor. Mm. ni parce que ñoom waa suba teel dañ ko fay xaalis ngir muy génn di saaga Wally sekk di ko wax ay wax yu ñaaw. moom moom tey loolu nu xëyee euh, euh, ban jàngat ngay def ci loolu ak ndax loolu lu am la. Mm-hmm. lan nga cee ban jàng nga cee li may ñaawlu rek mooy Sénégal léegi kenn xamul bu jëm quoi parce que bu njëkk ba yu mel ni doo ko gisati. Hmm. booy bi xëy na seetaan naa ko mais nit ñi am na loo xam ni yiwul daal parce que jaaga ma jaaga waali boole wuñu dama koo xam bu baax xam ay mbokkam xam fu mu jugee. Hmm. bu lay coon papaam suma xaritu papa la woon. Hmm. waaw passé sec. muy nit ñu baax coon jugee fu baax. Euh, ki ne tamit di nit ku baax nit ku mhm. sel nit ku jullite mhm. kon am na loo xam ni rafetul waaw toog ci kii bi di saaga ak lu leen nga def ko mhm. di saaga bu dee mattaar tamit di booy bi wax mattaar wax dëgg yàlla xamaluma ko loolu waaw xamaluma ko loolu daal mattaar moo nekk suba teel mattaar suba teel xamaluma ko jëf jooju parce que mattaar yàgg naa ko xam xëy na booy bi jàpp nañ ko dóor ko affaire yi metti mu sosal mattaar ni léegi la la la la boo xale yi daal si boppam ñoo war a yaru hmm. ñoo war a yaru parce que hmm. boo gisee déegi gaaw mooy xale yi amul loolu ndax gisoo ni mën na indil waal yi benn problème ndax yëf yi dañu nii moom moo tax ay nitam ñoo ko def non mun na waal yi talu leen waal yi mi ngi ci liggéeyam hmm. waal yi yëgul wallaahi yu yëgul te saaga yi sax xëy na dañu ñëw wax ko ko buñ ko ko waxul waaye parce que amul jot googu amul jot bi bien sûr mi ngi toppatoo liggéeyam toppatoo yaayam am na ñaanu waajur yaayam génn na di ko gërëm bay jooy mhm. loolu bu ko nit ñi xeeb mhm. ndax ñaanu waa waajur moo ëpp doole wàll ñaanu wàlliwu mhm. ndax waajur ñaanam direct lay dem da fekk ba si biir bàmmeel kon nag euh, lépp lu waaye def daal dafa ni yaa ngi koy def nit sa bopp nga koy def waaw xëy na booy bi moom moo def erreur moo génn ay génn ay saagam ay saagaam waali nag gëwuma li comme li nga wax dara fekk ko ci parce que yoonam nekku ci hmm. waaw bu ñuy wax nañuy wax ni te aussi pourquoi saaga bien sûr pourquoi saaga xam nga léegi réew mi moom la ñu xewal pourquoi saaga ngay génne def sa direct di saaga waaye am na ku ma dégg mu saaga tamit génn tamit di jéggalu xam nga hmm. parce que vidéo yi du fi deñ te am na loo xam dafa ñaaw hmm, boo gisee nag dee yu gaaw yi moom loolu rek la parce que mm. da ngay laal koo xam waroo ko laal. Mm. Mm. ak xam daal la. parce que wax dëgg yàlla jaaga moom. léegi gars yi jomb na saaga kenn. jaaga moom kuy wax. kuy wax war ah. nga koo mën a bàyyi foofu moom. jaaga. kooku dafa sell. dafa jullite dafa yiw. baax. kenn gisu ko muy lambar lambari. ba sa jëkkër woy woy la. xam nga loolu rek doy na nag ba am ñaanu jëkkëram. wax dëgg yàlla waaye boo reewee nag reew nga rek. waaw ah, xale bu réew moom. Mm-hmm. dañ ko seetaan rek. Mm-hmm. jërëjëf Alaaji Rafet ci wuy si gi nga xamante ni ñëw nga wuy si ko waa Sénégal set ci waxtaan wi nga xamante ni gàtt na waaye am na solo. ñu ngi lay bàyyi nga tàggatoo ak mbokku internet yi nga. waaw waaw waaw tàggatoo bi de maa ngi tàggatoo rek di nuyu tamit suma benn grand Cheikh Thiam. muy mm-hmm. nit ku baax moom tamit. di nuyu daaw Daouda Ndiaye sama nit la di nuyu sama soxna tamit Aji Naar sa sœur. Mm, maa koy nuyu Aji la grand frère. <laughs> Euh, ak Fagne Ndiaye euh, magam. xam naa incha allah faaw nu woo ko. jàkkaarloog moom waaw waaw d' accord amul benn problème di nuyu tamit madame Ndiaye ndey seet muy nit ku baax. Ah, muy suma sœur mm. bu baax. Mm. maa ngi koy ñaanal suñu borom yàggal ko ci sëyam. li mu bëgg moo ko xam yal na ko suñu borom defal ci barke yonent bi di ñaanal tamit Ousmane Sonko yal na ko yàlla musal bu la may ñaan rek ci pexe yi nga xam ne ñu ngi koy pexe chaque jour yal na bu seen pexe euh, jub yal na leen yàlla nasaxal ba duñu mën ci moom dara ba deux mille vingt quatre incha allah yàlla may ko wér may ñu ko may ko Sénégal gépp ba nga xam ni incha allah dina jël réew mi te seen kër gi day Sénégal set tamit yal na fi yaa suñu boroom def taw féex amiin amiin ba fi ngeen bëgg a yegg ngeen yegg fa dem ba mu nekk télévision bu ñëpp di seetaan international te dina am ndax borom dafa yaru bëggul sa ku koy tudd ndeysaan loolu daal laa amoon lu may tàggoo ndeysaan jërëjëf alaaji rafet ñu ngi lay jëfal bu baax a baax mm. te di ñaanal yow nga yàgg fii loolu te wér ba lépp li nga xamante ne bëgg nga ko comme ni nga ko waxee mm. ci ànd ak ak président Sonko yàlla defal la ko ci sa diggante ak moom mbokk yi ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allah ci Sénégal 7 jaa ngeen jëf.